nuyu naa la Ndiaye. fee naa la Seynou. loo ne. waaye sant yàlla. amagoo combat ba léegi. amagoo eh, yaa ma bëgg na jox combat kay daw kay. man daw ma adversaire yee bañ. waaye yaa daw nga naan lan yaa nangu da gën a bay liggéey def. <laughs> gis naa keroog Alboury. nee na sa digganteeg moom combat du ko daax. te Alboury moom fi mu toll nii. neex na jëflanteel doole ji bëri na. wax ji bëri na xaalis bi bëri na te dee dóore. waaw Ndiaye moom ko mu di neex Ndiaye moom euh, mu signé contrat moom di neex noonu la demee Alboury ko lam la lépp lépp ay lam la rek. mais ba ngaa jël avance. ku ñu lam boole pare nañu bu mbir waxuma lool ba xam ñeme ngaa jël avance Alboury laa wax. lu muy ragal. Ah, xamuma. Ndiaye amul lan lu muy xalaat. est ce lan. man amul lu muy ragal la. comme que kii nga waxal de comme que kii nga ba ba ba sa yaag jot naa yaax. caat ragal la waaye caat ragal la bu ma waxee caat gars yaag ragal lañu. Ah. li ñuy wax bu ñu bu micro yi taawee li ñuy def ci suuf la ñu war a bàyyi waaw ñun ñoo bokk lamb ji ñooy mayante xaalis. dañu wàññi kase bi sëgg bëri. waaw mooy yoon lamb dafa métti di entraîné te bërëb dafa métti. yow doo ñaar la jëloon dama lay daan la. doo dërëm. ngay bëri wax ni lan la. kii di la woo nga may laaj. bis boo ma jëlee di nga xam ni maa la gën a wopp teel a dam la. loolu sa jàmm. di la combat du aja yow seeti nga ko du yow seeti nga ko. mais seeti naa la. sara saraxu bool bool mais. Magasé kay Lo fay baax na lo fay baax ma jaral La laas yéen a. wala laas. laas yéen a.